ak suñ morloo mi ak ñeneen mm-hmm. euh, orientation bi jàll na ñoo ngi ci wote budget waaye yàlla waaloon naa la nag ci dépense divers yi bu fekkente ni mënoon ñu am luñ ci bàyyi suñu mbokki commerçant yi fii ci marché Ocass ndax sëriñ bi dong ñu war a jiitu bu sëriñ bi jàllee ñu war a topp ci ginnaaw Samba ak Demba waruñoo ci régions yi ñëw ñu jiitu ci liggéeyu sëriñ bi liggéeyu marché ndax ñoom ñooy ñun ñooy ñoom maa ngi jégalu li gàtt yi